alors mu ngoog di euh, ak jamono ji la reine du euh, Jolof Band muy euh, Viviane alors Viviane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. am mbégte contentement tey àndandoo ak yow ci Sen Petit Gallé nan nga gisee tey Sen Petit Gallé bi fi ñëwee tey. non mais très bien Sen Petit Gallé damay damay commencer ci féliciter sama soeur Ngonendo Ndour ak équipe bi yëpp parce que lii defe naa dafa rafet. xool xale yi nga xamante ni am nañu talent ñu génne leen ci yëngu-yëngu musique defe naa ne amul amul lu ko dàq te ñoom ñu ngi koy fësal donc tey c'est arrivé c'est arrivé vraiment ñu xoolee ko waay ñi waa Paar lañ seen xalaat rek la ñuy wax je pense que ñëwaat fi du mané sax ñëw fi mais ñëwaat fi plaisir le pour man xol xalé yi li ñuy liggéey vraiment c'est très bien magnifique alors euh, xalé yi bëgg la lool sénégalais yi ak sénégalais yi bëgg la lool trop euh, lan ngay waaj tay comme show ak gars yi ni ñuy euh, show Vivian tay waaw d'abord maa ngi préparé sama anniversaire le 29 septembre donc dinañ ko def le 29 ci goudi merci beaucoup. ak le 29 parce que le 29 à partir de minuit moins le 29 il ngi préparé Ben gala. le 29 concert bu mag et en plus album weekend. Il paraît prépare album bu Le maximum d'attention pour le toj. parce hein? que c'est ay école bi nar na toj rajo. incha